foofu laay rebondir rek yow sax parce jamono ji euh, gis nañ kenn koo xam ne peut-être mën nañ ne seen rakk la wala seen doom la. Mm. Euh, ci musique sénégalaise euh, gis nañ ko bu yàggul dara mu nekkoon ci ay problème ak ki nga xam ne moom mooy Diop Isaac yàggaatul dara ñu gis ko moom ci beneen problème ak beneen musicien mooy xale bi nga xam ni moom mooy naa tey ji ba doon jàkkaar jàkkaarloo ko caméra bi ban conseil nga koy jox ak loo koy wax. waaw dama koy wax rek li nga xam ne xëy na buñ ñu ko bëggal lu baax moom lañ koy wax. Mm-hmm. mu xam ni mu doon mm-hmm. parce que doomu adama ginnaw bi la say wéju jógee ba pare mm-hmm. yalla mom amna lu ma def soit day def soxna so xam da ngay jur wàllu mm-hmm. wala nga doon ko xam ni euh da ngay da ngay doonu dara ëllëg wala nga nek ko xam ni international nga ñepp dila baye xel ñepp dila la ñepp dila bëgg da ngay commencé woon na loolu <laughs> moom artiste la xam nga kon nag warul jël li nga xam ni tey moom mooy moom mooy moom mooy jëmmam ak moom jikkoom ak qualité yi ne ci moom di ko def loo xam ne après dañ ko ciy xeeb dafa war a fonk boppam xam mooy kan bu ko suñu borom booleeg borom kër mu sëy te xam ne jigéen ak tuddoo mën a ne dangaa war a sëy jur ay njaboot moom dafa war a meññ ay doomu aadama yoo xam ne da leen war a coow ëllëg moom bu xoolee foofu rek war naa mën a xam ni. parce que man fi ma bëggoon a ñëw sax parce que jamono ji gis nañ ko mu nekk xale nekk ci musique bi li muy def tax na sax bu ñu bëri ñemewuñu bàyyi seen doom mu dugg si musique. parce que mhm. jàpp nañ ni seen doom bu duggee si musique amaana day def yenn yoo xam ne du leen neex wala peut-être day yàq seen der wala yu demee noonu ba tax parent yu bëri du ñu bëgg bàyyi seen doom lu ci mel ni peut-être ma jël exemple seen petit gàlle. Mhm. du ñu sax bëgg bàyyi seen doom ñu dem fa ñu bëri ne seen petit gàlle dañuy yàq sax li nga xam ne ñoom ñooy xale yi. waaw xam nga wax moom bu xasee bu jóg jëm ci mbir rek mën naa yàq lu bari waaye bu dee lu baax la su wax ja xasee bu jóg am fu mu jëm mën naa defar lu bari euh, Petit Gallé boo koy seeraan xale yi bu ñuy woy sa xol day sedd da mm. nga xam ne xale yi ay jàmbaar lañ mm. parce que topp woyu nit woy ko ba mu jeex dolli ci benn buuñaa bu ndaw mm. xam nga tëj ñëpp kontaan loolu dafa neex. Mhm. te ba pare seen petit gàll dañuy jàngaloo xale yi. Mhm. dañ xale bu ci jàngul ba ba teel benn niveau bi ñoom du la jël. Mhm. lool lu baax la même ngay fecceeg lépp ci yem. xam nga loolu lu baax la mais tey boo déralee taf ci lee rek te dootoo bëgg benn xal sa dëkk benn doom bu dem petit gàll.